mooy xalifa Cheikh Mouhamadou Lamine bëggoon a teew ci jotaay bi te yàlla dogal ko ñu teew fi ànd ak sëriñ Xaadim mag rakkam yëpp ñu ñëw teew fii teewal ko fi man nañ ni ñii fi teew ñëpp moom la fi teewal ndax kenn ku nekk ci ñun am na loo xam ne war na ko koo doxal kon ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi nuyu ñëpp tey jiital ci nuyoo bi sëriñ Abdou Karim mi nga xam ne. mooy kilifa jitaay bii nga xam ne dañu ko woote wooteel ko sëriñ Abdul Aziz di jël nuyoo boobu di ko jaarale ci sëriñ Sidi mi nga xam ne moom la def mu jiite organisation bi ak sëriñ Cheikh Aziz ak seen rakk yi yëpp ñuy jël nuyoo boobu di ko jaarale ci ñoom ak taalibe yi nga xam ne dañoo ñëw ñoom ñëpp di nuyu maître Madické Niang lii ci suñu wet ñëpp xam li mu doon ci kër gi xam taxawaay bi mu fi am démb ak bërki démb léegi lay nettali ñun ñi ñëpp bi mu fii ñëw di ñëw ci doon kenn ku ci nekk man ngaa wane boobu benn néeg nga am wala benn lal nga am ba tey jii suñu borom dogal li mu dogal ci ñun ñëpp di nuyu monsieur le maire ni mu ko waxee sama xarit Abdou Lahad Ka te ñëpp xam ko ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal ñëpp di nuyu mboolem kilifa diine yi nga xam ne dañu fee teew. te teewal fi bis bi di professeur Bassirou Faye ak ñi mu àndal njëgeen ak Mohamed njëgeen ak ñëpp ñoom ñi nga xam ne ñoo fi teew dëgg la teewal fi conseil économique waaye nag teewal fi kilifa diine yi di nuyu taalibe yi yëpp itam di nuyu bokk yëpp di nuyu wëllëre yi di nuyu xarit yi sëñ Abdul Karim sëñ Moustapha nee na mi ngi lay sant. cant koo xam ne da koy seere mbooloo mii nga xam ne dañoo toog bi ma àndee ak moom ñëw ci yow ci bëccëg wax na ko ngay njëkk wax na ne euh, lépp loo xam ne defaloon nga ko sëriñ Abdul Aziz defaloon nga ko sa mag yi nga xam ne ñoo la jiitu woon ci place bii nga toog bi yàlla dogalee mu toog di sëriñ Baara la nga xam doon nga ko defal ku fi toog doon sëriñ Baara def nga ko ba defal ko lu ko raw tey itam nga ànd ko nag ak sa rakk yépp waaye ànd ko ak sa doom yi yëpp waaye ànd ko ak sa taalibe yi yëpp itam waxoon nañ ko fii bii mooy ànd boo xam ne ànd bu rafet rafet la yow yow ci sa jëmm itam lan daan wax rek la ne wax damaa wax ni koo xam ne lu baax rek nga xam xamoo leneen ba di ko def ku xam leneen mën naa def leneen waaye koo xam ne lu baax rek nga xam lu baax rek ngay def te itam li may wax. jàpp naa ne ñu bari mën nañ koo seet mu wax ne itam euh, jox nga sëñ abdu Aziz ay oto yu takku soo ko commencé am wata boo moom mën naa wax sax diir lu mu fi ne yaakaaruma ni am nga oto boo moom wala boog wata wala boog lu diir bu néew nga ko yor ñi fi toog ñëpp te fekke ko mën nañoo wàññi ay wata yu takku yoo xam ne yëkkati nga ko joxe ko addi te da ngay dugg sax loolu nag kenn ku nekk xam na ni ak taalibe ak pas-pas mooy li nga xam ne moo ko mën a lal te loolee delluwoo ca gannaaw ni fi sëñ Sidi Muxtaar nekk yépp la nga ko la nga la nga ko mas wax mooy fu ma yendu yaa ma fa yendal fu ma fanaan yaa ma fa fanaanal waxtu wu nekk ndigal lay déglu léegi bi ñu ànd ak sëñ ñëw ci yow itam loolu nga waxaat sëñ Moustapha ni ko la ma waxoon sëñ Sidi Muxtaar loolu laay yeesal ci yow fu ñu yendu yaa ñu fa yendal fu ñu fanaan itam yaa ñu fa fanaanal kon sëriñ baa ngi lay nuyu bu baax mi ngi lay sant mi ngi lay ñaanal mi ngi lay siyaare itam pour bañ a guddal sëriñ Abdou Aziz bi nga xam ne moom la ñu defal bis bi dinaa ko rappelé ndax taxawaayam ñëpp teg na ci seen bët ci kër sëriñ Bara lan la fi tabax ñëpp teg na ci seen bët ci ci kër sëriñ Bara eh, ndax wax nañ ko démb doom yi ñi nga xam ne ay doomi magam lañu ay doomi rakkam lañu mosu leen a jaawale. ak ñi nga xam ne ay doomi boppam lañ mën naa wax ni sax bu doon joxee ñu bokk fa toog ñi nga xam ne ay doomu rakkam lañu ñoom la ko jox loolu nag ab cër bu nu ko weesu taxawu leen ci éducation taxawu leen ci yar taxawu leen ci lépp euh, ba ñu agsi fi ñu agsi bi yàlla dogalee itam sëriñ Sidi Muxtaar jël relais bi moom itam la mu war a def lépp mu def ko defar kër sëñ Baara ci guñ bi kër boppam nga mu dëkkaloon boppam ca Mbàkke Kajoor mu jël ko jox ko jox ko sëñ baara soo ko defariwaat feneen foo xam ne pour ak pour ak njabootam la jënd kër ca ndakaaru joxat sëñ baara soo ko wëlbatiku nag def def li nga xam ne da koo waxuma da koo defal yoonu murit mais umma islamiya bépp képp kuy sëgg di julli am na lu la Cheikh Sidi Muxtaar defal te yëgoo ko ndax ku boole jullit ku boole ñaari jullit yu yu yu féewaloon te ànd rek am na loo xam ne liggéeyal nga ko jullit kon ñuy ñuy ñëpp ñuy gërëm ñëpp ginnaaw loolu itam ginnaaw loolu itam ñuy jeexale suñu kàddu rek fi nga ko baaxoo jeexale digal nit ñi ñu sax ci jaamu yàlla ñu sax ci liggéey ñu sax ci booloo nekk benn di jàppandoo di yëkkatandoo boole seen bopp ñëpp nekk benn ndax loolu mooy li nga xam ne mooy li fiy maye jàmm te àdduna feek ñu jubadi ñu ngi ñee feek ñu jubadi ñi jub ñi ngi leen di ñee adduna du baax mu dañoo war a fexe ba nga xam ni ñi jub dañuy ñee ñi ñi ñi jubadi dañuy ñee ñi jub ñi nangoo liggéey ñi nanguwut liggéey dañ leen di ñee feek loolu amul ci ci ci réew mi réew mu mën a doon ci àdduna bu fa bu fa loolu amul du dox kon ñuy dénk nit ñi ñu sax ci njub ndax njub ci la ci la lépp nekk bés dana ñëw boo xam ne lu dul dëgg du fa am njariñ lu dul njub du fa am njariñ te bis boobee kenn ku nekk ci noonu bu mu jàpp mukk ni mën naa tedd tedd tedd ba bis boobu jaas ko ndax sunu borom bind na ko ba noppi te sunu borom lépp lu mu bind wax ni danaa ko diggaale ak yéen loola moo xam waxtu wu mu doon waaye dana ko def kon nag kenn ku nekk ci noonu waxtu wu ne war naa xalaat bu sunu borom wéeteeg moom ba nga xam ni moom ñoom ñaar képp ñoo des mu di ko laaj te foofee saa boo bëggee wedd sa cër yi doon def li nga doon def ñooy cër ba mooy wax ne maa doon def nangam audit la ba nga xam ne duñ la ko laaj rek nga defuma ko ñu bàyyi bu ñu la laajee tey ni sa cër bii def na nangam nga bëgg a wedd ni defuma ko cër bàyyi jóg ni man maa ko def al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanoo yaksibuun kon ñuy dénk nit ñi booloo dénk nit ñi nekk benn wax naa ko démb ni guy mbind gi moom naka jekk loolu mooy li nga xam ne moo fi ma sa nekk booloo ak nekk benn euh, ganente ba ba wax naa ko ci nganu sëñ sëñ sëñ da sëñ siidee nga koy wax barki dem ci nganu sëñ dan gi mag ñi dañ daan ganente di seetante ku ciy dem jël ñëpp jarbaar yaag ñëpp yóbbaale ña war a xamante xamante ñi xamante wutoon xamante waa ne loolu boo booy xool am na côté yu baree bari yoo xam ne jóg na fi kenn ku nekk sëriñ bi dalaa defal a defal defal ba nga jàpp ne mel na yow képp yëfi sëriñ bi yaa ko yor te fekk yow doonoo ci dara ndax sëñ Abdoulaye waxoon na ne sëriñ Touba ba mu ñaan bu gestu woon du gis ku ko ni amin kon nag xéewali sëriñ Touba yu bari yii te yaatu ak jàmm ji ak ak ak ak ak ak dayo bi ak taalibe yii képp ku yaakaar ni yaa ko moom dangay nax sa bopp taalibe nga nit ñëpp da ngay doon jëwrin këy jiitu ci ay nit waaye sëriñ moom benn la ci sëriñ Touba moo ko doon kon ñoo ngi nuyu ñëpp di sant comme ni ko sëñ si di waxee bii itam ma jaarat di sant donga yi ndax lu fi am ñooma jumaa ji buñ ko tabaxee ñooma loo fi mas loo fi dégg résultat boo fi dégg ñu ni diwoo ko fi def te doon kilifa dëgg la de initiative ba ak moom ko ko neexoon taal ko jël ko def ko ci loola loola moom kenn mënu ko fay ñëpp xam na ni moom waaye nag loo fa gis doo nga yëg liggéey lu ñu leen woo ñu wujj ci lépp loo nga xam ne sëriñ bi bëgg na ko buñ ci wooj doo nga yu ñu wujj ko di nga gis koo xam ne bu ñu wootee doo am dépasse boo bàyyi sa kër te la nga yor ko si néew dem joxe ko ne nañ ko def ci liggéeyub sëñ bi kon ñooñu kenn mënu leen a fay waaye sañ tubaab mi ñu koy defal moom am na pay te bés dana ñëw ngeen xam ne am na pay ndax wax na ne euh, ki lu ci man balaa mu may xam dëgg dëgg dëgg dañoo wàqe ba mu xóot nit taxaw ci biir ñu nangu ko cornet ko dem ko bàyyi ko fi su boobaa de ku ko mën fuuf dana fa ñëw ëpp ko doole jot ndigal te du ko yërëm waaye boobaa bu ñëwee sëñ Tuubaa la fay fekk asalaamaaleykum wa rahmatullah